sell mi mu ndaw mi ci yéesu kanam gu sell gi moom Thérèse mi doonoon buket wu ndaw wi Saint Thérèse Lucieuse mu ngi juddu woon ci dëkk bu ñu ooyee alkon ci réew France ci atum njunne ak juróom-ñetti téeméer juróom-ñaar fukk ak ñetta foofa la dofee ndawayam mu doonoon doomu ak Auxilius Martin ñoom ci seeni bopp ñu ngi leen Pope John Paul mu ngi leen ràññatle woon ci atum njunne juróom-ñeenti téeméer juróom-ñeenti dal di jéem ndax jegeñ yàlla ca ba mu deenoo ndaw ci tolloo ci fukki at ya ak juróom foofa la jébalu ndax bokk dugga ca mbootaay gi nga xam ne fa la jébal woon ca Kamel ca Lusias foofa la dëkkoon dundinam yépp mu daldi suufeelu te wone it yiw ak takkute wone ne moom mu ngi jébalu fa yàlla ci kaadoom wone na ne moom mu teres mu ndaw ñi ku takku la woon ci yàlla te def na boppam mu doon ku yiw te kaadoom dal di nangu ci mbootaay googale fa la tàmbalee nag di sonna ci feebaru jàngoro bi ñu ooyee feebaru saxat ga ñu xamee ko ci tuberculosis ci atu njunne juróom-ñetti téeméer ñeenti fukk ak juróom-benn ci weer googale dale ba moo jublu ca deyam ak yiw gi nga xam ne moo nekkoon ci moom waxtoom gépp mu ngi doon di séentu ne dina gis arjana lu baax ngir lu baax li mu defoon te yàlla dikk ko ko gannaaw dee am nga moom yónni na nee na dina yónni ndax buket yi le wàcca si asam arjana te aga foofale seen terees mu ngi dee ak feebaru jàngoro tuberculosis feebaru saxaat gi uh, ci atu fanweer njun ci weeru hmm? septembre fanweeri fan atum junne ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar at moomale mu ngi toll woon ci ñaar fukki at ya ak ñeneent ci ndawaayam bi mu jébalwee boppam ndax wonee ne moom ku jébal woon la ci weeru april ñaari fukki fan ak juróom-ñeneent njune yu at ak juróom-ñeenti téeméer ñaar fukk ñetta seen Thérèse mu ngi doonoon ku ñu àggale te Pope payos fukk ak benn ko jël te boole ko ci ñi nga xam ne ñoom la yëkkati te selal leen ci weeri mi fukki fan ya ak juróom-ñaar ci atu ñaar njunne juróom ñaar fukk ak juróom ci weeru décembre it ak fukki fan ya ak ñeneent ci atu njunne juróom-ñeenti téeméer ñaar fukk juróom-ñaar Pope Pius the na ne Saint Therese mu sell mi def nañ ko mu doon njiit moom mu yem ak Francis Xavier ca ndax ñu jébalu woon ñëpp pour doon góor ak jigéen di tasaare xibaar gi ci àdduna si sipa ci weeri mee ñetti fan ya néw njunew at ak juróom ñeent téeméer ñeent fukk ak ñeneent Pope Pius fukk ñaar moom ci Saint-Thérèse nekkoon na ñaareelu nit que ñu boole woon ak France ca France ñu yemale leen moom ak Juan te lii doonoon na loo xam ne Pope John Paul defoon na ko ñaareel ga te jox ko tur gu kawe mu ne ko yaa di docteur yi jàngu bi ci fukki fan ya juróom-ñeneen ci weeru octobre ci atu njunne juróom-ñeenti téeméer juróom-ñeenti fukk ak juróom-ñaar bi mu doonee nit ki nga xam ne doon ki agalé xibaar yépp ci àdduna si ñu xamee bés boobu ne bés boobu mooy ñépp ñi di wone ñéppa uh, PRO please tell us briefly we have about two more minutes tell us briefly about the forthcoming uh, feast and what you expect from the public. Thank you, Reverend. Um, the feast of uh, St. Terence of this year, as our assistant Piero Malisengo has rightly said, falls on the 7th of uh, October, that is the coming Sunday. And uh, the venue of the feast will be at the St. Teresa's uh, Upper Basic School. And on that day, on that day we will only have only one high mass that will start from uh, 9 o'clock dot. And uh, after the celebration of the High Mass, uh, there is the magazine we are about to publish, or we are publishing. We will launch the magazine on that very date. And immediately after the celebration of the Mass, the High Mass, we will get into the magazine launch. And in that magazine, there are six small portions left to be occupied by advert. So we are calling on the general public to see avail themselves with that opportunity. And you know what it means to advertise your business or your undertaking uh, with the magazine that is to be published by the biggest parish in the Diocese of Banjo. You know what it means. So we expect that uh, the interested people should still come up to occupy the few spaces. Um, during the feast proper, there will be sales of food and drinks. There will be entertainment in our tradition. You know, uh, St. Therese has a rich tradition. We are popularly known as the Chinese parish. and there <laughs> you see all types of culture. Uh, that day it will be alive. You know, uh, we will have entertainers like the for Faustina group, mm -hmm. Missionary Childhood, and other uh, notable cultural dances. They will be on display that day. Uh, to cap it all, we have a, a LAFO ticket that is uh, on sale now. Each ticket will cost only $10. mm -hmm. I will have 10 fantastic prizes to be won. Mm -hmm. um, I can, uh, be the proper that uh, I will name some of the prizes. Yes, please. First, first prize is a standing fridge. The second prize is 21 inches color television. The third prize is a satellite disc and decoder. The fourth prize is the mobile phone. The fifth prize is the one-year tuition fee of 2,500 dollars. The sixth prize is uh, the dinner for two. The seventh prize is data card. The eighth prize is a shopping voucher of a thousand dollars. Uh, the ninth prize is a, a, bag of rice. And the tenth prize is 20 liters of oil. As you can see, uh, dear moderator, the prices are really fantastic. That's And right. let everybody be part of it. Yes. The more you buy the ticket, the more likely you will win. Yeah. And we are intending to raise at least a million dollars on that occasion. That's And by the grace of God, and the support of our, petitioners politicians and our friends and well-wishers, and most, most importantly, the support of God, yeah. we intend to actualize it. And uh, Thank you very much, sir. Thank okay. you very much. Okay. So there you are. The least you can get is a uh, a mobile phone. Yeah. Yes. Who can give you a mobile phone for ten dollars Nobody. Can you Nobody. See? Can you see? Who can give you liters of oil for ten dollars Yes. Nobody. So come. only St. And yes. Only St. Teresa's. So St. Therese is ready to uh, give us the goodies on that day. So please, please, let's all turn up as many of us, of us as can come and uh, then support them in their work. We pray for them at this moment. God our Father, you brought us into this world. Bless the feast that is to come. Bless everybody that is to take part in it for the praise and glory of your name. Amen. Amen. Amen. Amen. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.